décision conseil constitutionnel euh, wàcc na pour list bu Ndakaar et que rejeté nañu li nga xam ni moom la direction générale des élections defoon may nañ ñu fi mu toll nii pour ñu mën a changer liste boobu kon ñoo ngi gërëm sénégalais yëpp ci seen mobilisation ñi nekk biir réew ak ñi nekk bitim réew di gërëm vraiment bépp sénégalais ak euh, fépp foo mën a ne di wax nag nañu continuer mobiliser wu pour yeneen yi nekk ci sunu kanam yëpp te di xam ni il faudrait lépp li nga xam ni ñoo ngi ci nekk ñu dem ci ak euh, l'esprit du soldat mooy même couché euh, ñuy continuer di di di di combattre di continuer di taxaw di continuer di liggéey et je pense que aujourd'hui il faudrait pour liste Yewwi Askan Wi bu bu liste nationale am ñëpp xam ni amul benn problème ñëpp xam également que liste Benno Bokk Yaakaar bi ñuy déposé seen parrain yi am na un parrain de trop et que bu fekkee yoon bi continuer continuer na ñoom duñu bokk kon daal di leen féliciter di féliciter les leaders les leaders de la coalition di Khalifa Ababacar Sall di Ousmane Sonko di le ministre d'État Habib di Cheikh Youm madame Aïda Mbodj tous les autres leaders yi nga xam ni booba tey ñoo ngi mobiliser wu pour euh, ñu mën a compétir au niveau de Dakar donc daal yéen it ñoo ngi leen di gën a bu baax lan nga bi ngeen dugaloon euh, ci lu ñeel liste euh, Benno Bokk Yaakaar gannaaw ba nga xamante ne ngeen ñoom respecté wuñu parrainage bi. biñ koy dugal xamoon nañu ni. tontu bi la ñuy jot parce que il faut décision am ngay soogaa di dugal recours ñun décision amagul woon mais tactique la woon tactique politique pour mën a xamal leen ni lii mi ngi ñëw bu décision génnee génne list bu dak génne liste Benno Bokk Yaakaar daanu dugalaat recours daanu dugalaat recours pour mën a wane ni ñoom respecté wuñu parrainage donc ñu biñ koy dugal xamoon nañ ni jotagul xamoon nañ ni dañuy tontu nii duñ ko mën a traité xamoon nañ ko ak suñu ay avocat mais ñu ñoo ko defee noonu parce que lépp loo gisee dafa am ay tactique yooyu demee mais bu ñu publier seen liste ñëpp xam ni ñoom war ñu bokk dañuy dugalaat recours bi parce que bu boobaa ci lay soogaa di jotee dans les vingt quatre heures qui suivent daanu dugalaat recours pour wane ni ñoom danoo dépassé pare parrain yi war et ku dépassé parrain yi war yàlla jurisprudence Malick Gakou mënoo bokk